sant yàlla bu baax euh, maintenant c'est décidé que phase nationale yi incha allah fii lay dans la région de Diourbel alors euh, ñu euh, retenir ne que Mbacké sud la euh, Diourbel sud la ak Bambey mais Diourbel comme que stade parewul dañu retenir tout le monde noonu la tuddee tout le monde alors Euh, le football. Pour les activités culturelles et scientifiques, ça c'est à partir du CRD de demain lañ koy décider activité culturelle xam nga am na animation am na aussi théâtre euh, pour les activités scientifiques vous savez que on organise une université avec beaucoup de thèmes qui sont importants loolu aussi demain avec euh, l'autorité les autorités ceux qui vont représenter l'État au CRD et le gouverneur on va voir fa euh, fan nañ ko domicilier mais dès à présent on peut noter quand même mën nañu wax ne que am nañu satisfaction morale am satisfaction morale bi mooy engouement bu domiciliation phase yi suscité au niveau de la population gis nañu ne que ñëpp ñu ngi xaar n'est-ce pas loolu moo ñu loolu moo ñuy galvaniser soo xoolee fii actuellement nii mun naa wax ne tous les responsables du nawetaan de Mbacké et de Touba di département de Mbacké laa bëggoon wax sont là avec bu ñu jógee léegi aussi ba c' est la même chose suñu ñu jógee fii Diourbel lañ jëm xam naa c' la la chose donc loolu bànneex la dafay mel ni que gars yi dañ doon xaar alors euh, phase yi ñu domicilier ko fii y aura 32 équipes euh, seniors 20 équipes cadettes et y aura 14 bien que tout à l'heure bu may ñëw rek euh, ku nekk bëgg bëgg équipe am bokk mais tout le monde ñëpp mënuñ bokk aussi am nga phase nag soo gisee ñu def ko ni c'est pour donner la chance aux équipes yu nga xam ne ne mosuñu gis phase mosuñu qualifier phase ba tax na am na ñuy qualifier am na ñu xam ne dañ leen di invité donc tey jii nii fu may waxante ak yéen euh, lu ñu defagub yëpp mun naa wax ne conditions yi réunir na euh, léegi nag su dee dañu xool si rétroviseur lan mooy indi phase yi fii maatam lañ ko naroon def ñu délocaliser ko. bu ñu ko délocalisé on l'a pas délocalisé aujourd'hui pour indi ko Mbacké aujourd'hui dañu décali délocaliser informe ORCAV yi informe les Sénégalais que phase yi muntul am maatam ndax lii ak lii ñu toog xaar mu am ay régions yi manifester les région qui sont manifester le président de Ziguinchor est là avec moi bu mu jógee foofu Ziguinchor di ñëw dafa indoon cahier de dafa indoon lettre pour di nañ ko jox cahier de charge bi au de loolu yaa y a aussi l'axe Kaffrine euh, euh, Kaffrine kon Nioro Kaolack ak euh, Fatick au de loolu il y a Dakar et une partie de Thiès Dakar Rufisque mais finalement ñun suñu attention lu mu retenir mooy de faire ça ici à Diourbel mais comme je l'ai dit il y de regret pour le moment ñaan mu yàlla sax regret am di gërëm nag l'honorable député Cheikh Euh, Cheikh Thioro Bakke mais aussi notre ami et frère Abdoulaye Fall bon Cheikh moom daanaka si nawetaan la bokk parce que président d'ASC la même su dee ñun mosuñ ko gis mais yaa y a moins de deux mois réduire na ASC yu nekk Touba yëpp nest ku nekk am lu mu ko jàppale defe naa ne ñun loolu lañ soxla lu ñu soxla mooy mécènes yi euh, n'est-ce pas ñu nga xam ne yàlla am na lu mu leen wërsëgal ñu mën a gëstu ASC yi parce que ASC yi des fois dañu nekk dans des conditions extrêmement difficiles mais au-delà de cela aussi le président de la ligue de football Abdoulaye Fall n'est-ce pas Abdoulaye Fall moo tax ñu xam euh, honorable député bon léegi nag du ñoom rek on lance un appel n'est-ce pas à tous les fils de la région Diourbel c'est pas une petite affaire kon ko Touba est logé dans la région de Diourbel nga xam ne Diourbel est au cœur de tout ce que Sénégal doit devenir alors loolu moo tax ñu lancer un appel à tout le monde pour que ñëpp ñëw jàpp si jàpp si sa présence jàpp si sa poche ak loo mun jàpp si aussi ak sa xam-xam parce que c'est pas moins de dix mille personnes qui vont se déplacer ñëw sujet ñëw fii du 31 août au 14 septembre 31 août parce que dañu namm def ko après magale bi 14 septembre dañu bëgg def ko avant gàmmu gi donc leneen lii nag vraiment waa Mbakke waa Diourbel waa Bambey euh, nañu gën a taxaw yàgg nañu ñëw si phase nationale xam nañu lan la nañu xam ne affaire bi seen yëf la seen organisation la le budget est de 186 millions n'est-ce pas budget bi 186 millions la am nañu yaakaar ne après le CRD le budget va être bouclé donc euh, loolu laa amoon lu may wax ne